ma sax wax. Uh-huh. c'est triste quoi c'est triste. combat xamante ni mën na trois ans lu ndaw nekkatul lu ndaw parce que bu papa demee ba gaañu nekkatul lu ndaw uh-huh. donc je pense que tey encore une fois lamb wanewaat na xar kanam bu nga xam ne honoré wu ko uh-huh. euh, je ne sais pas quoi dire mais je suis triste parce que combat bi yàgg nañ ko waajal ñaari mbër yëpp bu ñu sañoon tey. bëree tàggalikoo promoteur bi bu sañoon tey làmb ji jeex ku nekk dem sa yoon mais c'est dommage que xew nii moom euh, njort naa ne làmb ji yàqu na. waaw xam nga ku ñuy jiiñ dem doo soccoo yeeli liir donc nit bul bañ ñu yàqal la ci baaru gaalu xaj mais buñ la ca fekk ngay lekk ñëpp dañu indexé làmb ni làmb sport bi ah, ay ay nit ñu violent ñoo fa nekk ñuy wax toujours violence toujours violence donc tey bu ñu ñëwee lu mel ni am euh, deru làmb mooy gàkk encore une fois lañ doon teg ci suñu kaw dañu koy dañ koy mérité donc euh, encore une fois c'est c'est dommage mais dans l'organisation aussi am na ay mbir yi nga xam ne waroon nañ ko gën a fàggandiku parce que fi papa jaar euh, ba lii am pour man warul woon jaar foofu ndax foofu fa la batterie batterie Siteu nekk supporteru Siteu yi fa la ñu gën a bare donc bu fekkee ni dem na traversé foofu problème mën na am c'est dommage que foofu lañ ko xàllal foofu lañ ko wax fa war a jaar mais dans l'organisation warul woon jaar foofu Boy xam nga bi ñu tabaxee arène nationale ñu bëri dañoo wax ne niñ ko configuré waa làmb mérité wuñ ko làmb ay ay ay ay ay ay ay béton lañ ñu war a defal ñu ciy toog donc tey ñu doon wax loolu am nañu raison ci ax lu lamb parce que à chaque fois ku mer ak ku kontaan yam sa premier réflexe mooy dajji chaise yi donc kon ñu defal ñu ab dër ñu ciy toog sax moom moo gën ci ñun parce que vraiment ku nekk aussi euh, war na def prise de conscience nit ki bu fekkee ni da nga bëgg benn sport nga ci yëngatu say ñoñ di ci yëngatu nga am ci mbër li la war mooy gunge mbër mi ci jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj mais encore une fois li gàkkal na deru làmb rafetul li ñuy def aussi c'est c'est vraiment dommage moi j'ai le cœur meurtri je je suis triste pour la lutte et j'ai même envie de laisser tomber la lutte et d'aller faire autre chose parce que tey lamb vraiment li ñu wane rafetul daal xar kanam bi rafetul. Euh, li ma gis ci deret mu jénn si moom mm, à mon mënul bëre maintenant tout dépend de l'avis médical moom lu mu bëgg a jéngu-jéngu bu ko médecin yi ausculté xool ko xam ne warul bëre buñ ko nee bul bëre mënu ci dara du bëre. Donc le combat sera renvoyé et le CNG est mis devant ses responsabilités ñoom ñooy xool lan moo xew en fonction des rapports yi ñu jot ak ñoom li nga xam ne gis nañu ko ñu jël seen ay mesures mais ce qui est sûr et certain man su doon maa yor papa du bëre. non xam nga Siteu deful dara Papa Sow. Papa Sow deful dara Siteu. donc li ci des mooy kan moo indi problème bi te loolu la ñu war a analyser je pense que mbër yi ci seen biir amuñu problème Siteu ak Papa ay naatangoo la ñu war nañu mën a bëre. Papa même bu mayee chance Siteu parce que moo ko jiitu ci làmb war na ko ko may parce que Siteu dafa wane lu tax mu war a bëre ak Papa Sow sur le plan purement sportif y a rien à dire. ñaari mbër yi bu ñu sañoon ñoom ñaar ñu tëj barrière bi arbitre bi siffle ñoom ñaar ñu ñu ñu ñu ñu bëre mais tey li xew vraiment c'est désolant encore une fois et c'est regrettable. c'est un signal fort pour tous les grands combats. arène bi ni mu bindoo tëgg fi yenn làmb yi ñëw ci sax jaay sa bakkan la.